turu Nogaye Mbaye lay wuyoo ñu gën koo xam ci Nogaye promoteur yi ceeb ji nekk fële ci marché bu tas watu résidence Serigne Babacar Sy di jaay lépp loo xam ne dafay jëm ci luy neexal sëy muy parfum cuuraay ba ci dara wul dara na koy nee na képp koo xam ne jeex nga bëgg rek sa sëy neex dawal gaaw ko sees ma ma defal la ay xeeti baax a neex ngañ mu Serigne Babacar Sy nekk fële ci Tivaouane marché bu tas watu gaara su kalandoo bi di jaay lépp lu jëm ci wàllu matériel sport képp koo xam ne bëgg nga sa wàllum sport daal di jaar yoon ngañ nee nga daal di daw si gaaw rek daal di may sees yi ma daal di jagal sa sport ba nga daal di kontaan ak ngañ seen sport dafay neex. salon de coiffure Darewaat nekk fële ci Tivaouane Zeyna ba di aas ñu liggéey liggéey bu mucc ayib képp koo xam ne rek bëgg nga maanaam sa bopp daal di jaar yoon wala mu daal di rafet dawal daaw nga daal di seete ñi nga xam ne ñoom ñooy salon de coiffure Darewaat ñu leen di may seen série Tabaski Baye Mbaw. Tabaski leen sama waaji waaj na bés bi Baye Mbaw Tabaski sama waaji waaj na bés bi. waaye di sunu aawala bariwul li fere tubaab bi lay xale bi sunu doom la Europe la jóge indi ju kom teg ca réew ba dof dolli nu fere mag mu wax mu naan toj sa mbaari mu naan paxte kër goo xam ne boo xëyee doo kenn ñëpp dañ naan mes ah <laughs> waay waay waay ngi. maa ngi nii nga def ci suba teel. maa xam ne fu ma la gisee sama xol bi day sedd. Eh. guy guy guy yaaral. xol ngay gisee. Ah. waaw Ndiaye noonu laa la namee. gis gis nga ni man. maa bu yàgg ba nga toll defee la sa parfum àkk si. gisuf ni may nooyee nii di ko xiccaale. Oh, yoruma parfum bu ne. <laughs> foofu ba nga yore toogal nii man lii mag day mag gën nga ma kaa jox na ñëw rek yam sa place mm. dawoo randuwoo tey dooma ci par xam nga góor ñi fi ñi fi fi wopp ñëpp ñëpp ñëpp wax ju sew leen wax wax ju sew surtout wax guddi mi te yow nag yooyu yooyu yàlla dëgg yàlla ah léegi nag mhm. ma woon nag dama lay delloowaat njukkal moo di. Hmm. xam naa sa taxawaay ci kër gi. waaye nag naa génn wuti dara. ndax tës ki jub si na. mën leen a mën leen mën leen a satisfaire. dëgg la ni li nga bëgg ma di la ko defal. muy muy muy muy xar neeg. waaw xartum gi donte ni xartum amatul. jees neere am mais xartum gi ak li ci kaw moom. moo ne yaa ngi def sax de. bul xeeb li ngay def benn yoon ndax man xeebu ma. dolli xanaa dolli. waaw loo def baax na. dolli rek. waaye nag nijaay wuti liggéey bi moom ànd naa ci. Hmm. waaw ndax borom kër bu nekk. Hmm. borom kër la. Hmm. te borom kër ñaan na yàlla këram lu ñu joxoñ mu dagg. wallaay wallaay. ndeysaan da nga di góor. wallaay. yow da nga bëgg rek lu waaye joxoñ nga dagg. billaahi jamono neexul rek. waaw moo tax dangay ngay am. jamono neexul rek. dama lay ñaanal nag. fii nga jëm ni wuti liggéey. yal na ko yàlla may amiin a ñaanal gis naa ko. ci barke Serigne Babacar amiin waay waay góor boo ko tuddee la bëgg amiin yaa rabbi. <laughs> demoon na ma bul yàgg damay wéet. incha allah ma man saa yow mënu maa ah ñaaw saa yow mënu maa <laughs> eh, loolu neex na parce <laughs> que nijaay moom may faj man. mami. waa yaa ma doon dégg kon. bu baax kay. ah. bu baax eh waay <laughs> kon baax na. yaa ngi may woo maa ngi wuy yaa ngi insisté. yow boo wuy woon ma dégg la ngaa wuyuwul ji. dégg naa loo andi sama papa. sa papa léegi la génn daa wuti liggéey. wuti liggéey waaw. c'est bon. alhamdulilah. wax ji am ma ma neel naa ko divorce bu amee lu mu kii rek ko jox dégg nga waaw. Ah, ok <laughs> dem day batale rek. mu day batale rek. xam nga ne ba nga fi ñëwee ba léegi gis nga ni kër gi demee te jamono neexul léegi na sa papa ñun ñaar doon fi nekk ak sa papa mu dem wuti liggéey pour pour dimbali ñu du dëgg ma bëggoon nag. nga comprendre sa papa parce que sa daa bëgg loo joxoñ mu dagg du dëgg te nag yar ba am fee at fii duñu benn ma bëggoon nag nga góorgóorlu comprendre sa papa bu mu am liggéey loo joxoñ mu dagg dëgg man maman maman sama papa heure bi lay demut liggéey heure bi sama papa nëbb de parce xam nga loolu waxu la sax muy daal moo yor doom xanaa xam wërsëg booy daw muy daagu soxna si en sept la waaw heure kër liggéey liggéey kay heure boo dem baax noo def nag sant yàlla nun bu nu batalewul lu ñuy def moo tax itam jéeg gi léegi fi ne yow yaay def sa yëfi bopp yow yaay dikk di joxe yaay kon ñu ñoom xamatuñu communication lépp fi mu ne nii ne góor ñi la lépp ñi la kon nag ni communiqué di jokk ak borom boutique des fois foo yoree fukk gisuma ci pexe dem jox leen fukk yi ni leen téye leen laay laay la ñu téye ngeen leen man de yoruma dara demal ci boutique ba nekk yaa ngi koy fay ci suuf góor ah góor ah góor day dox système bi. rek moo la ciy génne. waaw waxuma foo jëm. xanaa ci yow mi di laa jëm si ci man mi waaw. fii noonu ngeen di dundee. fii la fii li xew fii amul heure yi ñu bong fii amul fii. en tout cas daal sama papa wax la fu mu dem. ah wax la fu mu dem. moo yow doom ba maa sa baay ba nga judd ci. ma gën laa xam sa waat nga ne yëpp ah eh munoo ma tuuti nga bu jaxase ñu dañ cee tuuti. c'est l'amour qui parle comme ça. ay waay ko may xoj ma dee. personne ah. personne yow nag yaa may xoj. pas moi. munu ma laa jur nga bëgg a tudd samay lamuur a sa papa ah. en tout cas daal sama papa wax la fi muy dem jugal dem seeti ko balaa muy trop tard. yaay jóg abal ma. man mi waaw man doon ma stress yow mi yaa na dóor juróom. man nooy stress doom xanaa sa yaay sa yaay lu mu nam ba doom di stress. namoo dara dara namu ma. mais sama papa tam namul dara. nga bëgg as papa bi mu ci biti di. je sais pas. munoo maa yàq munoo yàq sama xel mi nag ah munoo yàq sama xel danga cee tuuti nag. waaw wax dëgg fii Hmm? fiiro <laughs> xam naa fiir kay nag waaye nag ay kawaas la laal de waaw moom si jaaxal sa papa kay ah, man de marché laa ñëw ah, dëkk ba wuti ma jàpp jot na nag wuti ma jàpp jot na de man mii xam naa ne sama tànk yi looloo ko waral ah. fee tabaski gi jub si na da tubaarkaal la tubaarkaal la mbay la nga jàppoon ano xam nga ni fii moom wax dëgg yàlla nag moom gars yi la yàlla xam doy na. Hmm. Ah? ah. baax na yàlla di borom sutura la. Ah. yàlla di borom sutura taman taman gis nga mbay. dëkk bi ñi am na ni gën a am rek. ñuy ñàkk di la demee. loolu ma jaaxal nag daaw fii sëñ Mansour Jabaay xar mu mag la ma jox xar mu mag ma dir di reeku ñëw ko kër ga kenn ku nekk di di di ko yéem. Hmm? te ren nag mu xanaa ndax yàlla xanaa ñu seeti ñu mel ni ay ñoom Matar Diouf ak ñooñu xanaa nga xamante ni defal waa defal yàlla lañu. Matar waaw. waaw ah, wax de ay Matar yow comme comme comme waxoon daal rek moom sa secteur la. Ah? waaw sa secteur la. waaw gérer sa secteur. man man ma dem beneen secteur ba. saa beneen secteur mooy ban. boo seetee ma. comme dañuy àndandoo ba dañuy àndandoo koy nañu àndandoo rek. bu hmm. fee jagul xëy na fee jag. ah waaw dama ah, bëggoon yombalal ko rek nga dem ci Matar ma dem ci Abdoulaye Ndiaye Ngalgu bu ko defee kenn ku ne <laughs> bu nu dajewaatee nu xam kooku buntu la de ah mo ah, yow Ngalgu moom it de buntu la ah waaw mo mi faaw nga def doxee feem maa la xam faaw nga dox takat li nit yor dañ koy joxe dong dañ koy joxe tiwaaw na leen ñor tiwaaw lañ koy jox ñoom lañ koy jox waaw wallaahi kon nag wax dëgg yàlla nanu fexe am ci comme ni ñëpp sëñ Ba toogaay amatul nan dem nan daal di rek ji xool nañu def rek doxal tabaski leen sama waaje waaj na bés bi Baye Maw tabaski sama waaje na bés bi waaye jiboor sunu aawa la bariwul fere tubaab bi xale bi sunu doom la Europe la jóge indi ju teg ca ba dof dolli nu fere mag mu wax mu naan toj sa mbaari mu